Gracias. suñu directeur ca kooku lañ jëm parce que jaxase nañ ñoo autorités yi nee nañ dañoo saccagé ay bureau à l'INEFJA c'est amul. amul tojuñu fa benn bureau li ñu toj weesuwul benn verre lu environ quinze mètres carrés quinze centimètres carrés je dirais euh, plutôt te ab fenêtre la ay novant ñoo doon manifester tey ñu ko dal seen loxo dal ca wallaahi nii la fa demee. ñu ñuy jaxase autorité yi bind nañ fépp ne on est indiscipliné dañ doon saccagé ay bureau je crois que kii laaj ordinateur di laaj euh, bibliothèque sonore donc je crois que du kooku mooy saccagé c'est illogique c'est irraisonnable ah compter les faits sont là foog nit ñi créer ay argument pour xool nan la ñuy dissuader la vérité mais dëggay mujj te moo njëkkoon li ñuy def ñu décrété 24 heures de mouvement vendredi donc je crois que 9 points euh, la moo ñu tax a génn di wàcc ci tali bi ba ñu debee defee début daal l'année ba tey benn voie la ñu jëloon muy jiital dialogue jéem a jàppale suñu administration ci benn volet muy lu avancé loo INEFJA je crois que ñun ñëpp moo ñu moo ñu ñor te bañ a nekk fi di génn di grève au moment où suñu suñu camarades yëpp ñu ngi jàng loolu c'est pas intéressant ñu euh, def loolu déposer ñetti ñetti plateforme revendicative yi nga xam ne ñoom il tarde à satisfaire ces plateformes bugguñu cee wax bugguñu cee ñëw lenn moo leen ci dérange mooy on a sollicité le départ de l' infirmier parce que UNEFJA fa mu nekkee ak ay handicapés yu fa nekk chaque jour ay accident mun na fay am c' est des handicapés qui lu ne mën na fa xew ah tard la nuit wala heure boo mun mënti di wër infirmier foo nga topp ci di wër di wër di wër dañoo dem ba ne situation ba dafay changé beneen point bi mooy le manque de sécurité bu ñu demee ba ay jaan dafa génn ay lu ne di dafa fa laal ay nit di fa yooyu je crois que àdduna war na dépasser loolu ay lu ne di dugg ci biir école bi nit ñi di tox ci ginnaaw école bi ak yooyu noonu donc je crois que c'est des situations yi na fa am. nit ñi mën a nekk ci kaaraange je que loolu noonu ku dégg ne sa doom nekkul ci yooyu nga ko yaakaaree woon yaakaar ne école am mu ngi mu ngi koy aar na mu waree donc je crois que di nga dina la décevoir trop. wax nga ne am waaw xëy nañ fi di julli comme ni ma ko waxee woon bee paase rek ab dof moo ñu fekk wala boog nit ku xel mi matul moo ñu fekk ca biir euh, fañ doon jullee kon lool bu demee bay xew kon je crois que sécurité amu fa nañ leeral situation boobu noonu te jox ñu li ñuy laaj li ñu laaj ni amul leen loo xam ne jafe na ci wala lewuñu beneen bi mooy bibliothèque bibliothèque la ñu wax bibliothèque moom je ku ko dégg rek xam ne ñun buñ bu ay élèves demee ba diri ko revendiquer utilisation bibliothèque utilisation bu permanente boo xam ne dafay sax dafay law je crois que élève boobu noonu daf ko lew nekkul lu jaab li ñu laaj mooy qu'il y ait plus de de de rigueur concernant l'utilisation yi ñuy laaj beneen bi mooy hygiène dans la dans l'établissement buñ ci njëkkee mooy hygiène dans l'alimentation bu ñu demee ba en 2016 ñuy jox ay aliments yu nëpp yu pourri di ñu ko jox ñu koy lekk ci ay handicapés visuels je crois que c'est c'est décevant loolu noonu c'est c'est décevant na ko autorités yi dégg xam ne loolu lu ñuy dënd la à l'INEFJA on est souvent on subit souvent des cas d'intoxication yooyu noonu yëpp daf am loolu noonu yëpp dañ ko muñaale at mi ba ne at mi mu ngi waaj a jeex mais ba ba tey ça devient de pire en pire. waxtaan bi lu waxtaan bi ñun xamuñu ko la ñu waroon def def nañ ko muy woote nañ woote nañ ay ay ay ay euh, joxe nañ ay plateforme joxe nañ ko ñaari yoon ba ñett yoon donc je crois que loolu lañ leen mënoon jot nañu réunion ca début d'année ba wax leen point yii nii ñu fi wax ni daanaka yëpp wax nañ waxoon nañ ko fa mais taxul ñu indi ci benn solution. léegi nag ñoom li nekk seen kii mooy ñoom gis nañ ne ñun dañu leen di forcer la main et ils disent que qu'ils vont sacrifier un grand nombre d'élèves loolu du fi amee élèves yi li leen fi tax a jóg weesuwul ne dañoo bëgg jàng tekki génn dem seen yoon INEFJA neexu fi neexaay ga nga xam ne tam euh, jaral nañu yenn yi je crois que euh, ku ci nekk li nga li nga bëgg mooy jàng réussir dem dem sa yoon je crois que génn di grève neexuñu ñu ko ñëwoon tey génnee suñu camarades yi xamal leen la nga xam ne moom la ñuy dund li ñu lew la ba ñu xëyee nag yàlla def na ne tam euh, ñu daje ci force de l'ordre yi waaye amaana seen liggéey lañ doon def ils nous ont brutalisé nañ ko muy leer